jaajëf yaa wëccëg wëccëg sama gars yi salaam jàmm ko mbedd ni gës baa ngi nuyoo léeg maa ko mëj wóolu waa dégg ko fay may chef booy ji ji jii di terre ay koy booy grand ay koy messi ay koy takke tey dañ ñëw fii Yoff fekk fi Crazy Mass génne benn EP bu nice eh, ñamu bët dinañ dugg ci EP bi waxtaan ak moom eh, ñoo ngi fii ci lieu bi di garage Yoff eh, nekkatul garage nag jardin la ñu fas yéene waxtaan ak moom vous dans votre émission Galsen Sama Game sur Equivox TV seen télévision bu mag bi jaajëf sama gars yi Crazy Mass mi ngi nuy toog ñu fas yéene waxtaan ak moom ci carrière mag ci projet yu mu jot a génnee ak lu muy waajal ak ci lu mu nekk jamono bi ñu toll Crazy Mass naka mu. waaw nice di maa ngi lay siyaar di nuyu yoof di nuyu aussi euh, képp koo xam ne ni mu ngi seetaan euh, mu ngi abonné wu si chaîne bi di ko seetaan euh, di la nuyu yow ak équipe bu Equivox bi yëpp mm. maa ngi leen di nuyu waaw di leen jaajëf Crazy Mass naka Yoff Crazy ak waa Yoff naka fii waaw Yoff mu ngi nii ah euh, mu ngi nii di neex noonu laa ko mën a waxee suñu dëkk sax masul naqari bon mais yoof mu ngi fii ci ginnaaw Crazy di jàpp ci ci ci samay projet bu baax baax di pousse Crazy si ci lépp loo xam ne nii moo ngi ci fekk si nañ ma ci bon Yoff euh, chapeau à moom jaajëf Crazy Mass dugg ci sa projet génn si projet bi duggaat si yenn détails yi jot nga génnee benn projet ñamu bët projet bi 2017 la génn suma juumul wala 2018. 2018 projet bi fu mu toll. waaw projet bi max la bu tudd bu génnee bu tudd ñamu bët ñu ngi ko génne le 21 janvier 2018 bon bi ñu ko génnee nag yàlla dafa def ñu génn ko pare am ci yeneen business yu nekkoon après euh, il fale fallait ñu dem régler loolu ba pare pour mën a ñëwaat bon euh, nekkaat ci rab bi à 100 pour cent. léegi bi ñu demee ba régler loolu ñëwaat nañ bi ñu ñëwaatee si lañ soog a def vidéo Mouhamed bi nga xam ne gars yi yàggoon nañ ko xaar après aussi 28 bii di ñëw décembre bi ñu nekk nii le 28 dinaa mayaat gars yi beneen vidéo bu tudd jabaru jàmbur incha allah. jaajëf jabaru jàmbur mooy single bi nga mujjee génnee rajo yi ñu ngi koy teg mu nekk benn sound bu nice mais damay des si projet bi nga génne EP bi ñamu bët. Euh, mu nekkoon benn EP bu nice mais EP bi doo tourné ba dégg ko fenn EP bi doo tourné ba gis ko fenn mu mel ni Crazy Mass dafa génnee produit rek sànni ko noonu ko quoi bañ ko suivi lu nekkoon problème mu Crazy Mass lan la danga nga amul woon moyen yu mën a pousse projet bi wala lan. waaw max bi moom euh, autoproduction la génne mais daanaka du woon du woon moyen carrément carrément moo tax quoi mooy li may expliquer léegi rek maanaam jamono boobu noonu dañu nekkoon si beneen affaire boo xam ne ni bon xëy na bon bëgguñu ko wax. mais dafa nekkoon dañu nekkoon si beneen business noonu laa ko mën a tuddee te bi ñu paree ci loolu noonu ñëwaat nañ xëy na loolu moo tax ñu naan EP bi dégguñu ko fenn et tout mais n'empêche que tamit euh, ñu woon luñ ko génnee xëy na moment bi ñu ko génnee rek ak yàlla lu muy dogal mais rëccuñu woon luñ ko génnee ñu ngi siy jot ay ay façon égo bu ne comprendre nga ba récemment nii nii nii nii nii EP bi ba léegi gars yi ñu ngi may kooj naa man non sa business bi dafa yu demee noonu léegi rek yaa ngi wax si sa biir wax gars ñu ngi koy apprécier et bon ñamu bët la loolu laa mën a wax sénégalais ni ñu ko ñamu bët la woon du woon dara par rapport ak li nga xam ne moom lañ denc. Mhm. te bon fu mu toll nii bëgg nañ avancer pour defaat yeneen. ok ñamu bët la woon jotoon nga maye ñamu bët Crazy Mass lan lay joxewaat lu bokkut ak ñamu bët luñ mën a xaar si moom. waaw man nañ xaar aussi benn beneen projet ah si 2020 bii nii euh, léegi rek maa ngi koy wax déjà jabaru jàmbur ñu ngi koy maye comme comme single. war a bu war a disponible 28 incha allah. mais mën nañ xaar leneen mën nañ xaar aussi concert aussi avril biir Yoff parce que gars yi ñu ma koy laaj gars yi nag namm nañ ko. comprendre nga donc euh, bëgg naa defal loolu avril incha allah fu mu toll nii daal bon mooy li ma la wax rek ñu ngi ñu ngi ci yeneen. Euh, waa ñu ngi ci beneen wéy quoi. Mm-hmm. yaa ñi nga gis tamit yaa ngi def ay freestyle yu naaj sanguinaire lu waral sanguinaire sanguinaire lan lay lan nga bëgg wax foofu. waaw xam nga hip hop moom dafa am benn benn affaire boo xam ne mënul dee. ci moom mooy hip hop dafa am benn côté mbedd pour man loolu sax mooy def charme hip hop comprendre nga parfois il faut muy dëgër et te créer dafa am genre public boo xam ne ñi ñooñu dafa am lu ñuy bëgg ci moom comprend nga te mënuma aussi di leen ko defal à tout le temps donc il a fallu ma créer ma créer benn projet bu tudd sanguinaire pour léegi bon heure mu amee temps sànni leen benn def naa un bi disponible na euh, sur YouTube boo defee creusement sanguinaire hashtag one di nga ko gis euh, deux bi incha allah euh, dinañ leen ko jox janvier. jaajëf Crésimence euh, damay dellu si ginnaaw ci projet bi nga génnee ñamu bët donte xawoon na bëri coow parce que jamono boobu am na ay artistes yu génnee ñoom seen projet mixtape tuddee ko ñamu bët ñu waxtaanoon si ma ni la booy dafa mel ni am na gars yi waa ji génnee projet ñamu bët nga ni ma yaa njëkk jàpp daat loolu. li tax mënu woon changer sa bagage bàyyi leen ñoom ñu continuer seen kii. waaw bon ñamu bët bi maa ngi ko jàppoon depuis 2016 depuis 2016 bëggoon naa bu génn mais ñu nekk si ay réglage ak ay affaires yooyu noonu parce que man dama dama dama yàgg bëgg job boo xam ne nii dañ koy euh, dañ koy laalaat di ko laalaat ba mu ba mu impact quoi comprendre nga léegi ñu nekk ci di jóge ko daanu ba 2018 après bon si la comprendre que ni jaaxas la yaakaar naa ñoom la. voilà ñoo waroon def benn projet bu tudd ñamu bët. mais bon ma ne ba léegi da koy neexalan ah, parce que man bon lu ma bëgg def euh, dama koy def nekkul nekkul que beneen beneen rapport day def même son bi wala même titre bi mooy tax ma koy changé parce may jàpp ne à chaque fois créer rek moo fi nekk kon créer bu waree def dara na ko def mu am si benn son bu doy waar moo ma delloowaat ci ginnaaw Mouhamad yanqooba xaaroon na ismaila yahya jën beeg yunus ayoobu muñ na moussa xar na géej ak taar bi nekk ci yusuf xaali ibnu walid bilal shérif maamin ay dara comme awaak aadama idrisa est-ce que moo ngi àjjana diine dañ koy mas di xeex ba faw di yàqte dañu si mën tuus ibrahima maamu yonente yi jàpp ko duma ci mën xuus imaam malik oustaz daam njaay góor yàlla ngi julli ci waxtoom war a xata ibnu nawfaal abdullahi ibnu maxtoom sénégalais yi bëgg ko ñëpp yàggale si topp Casamance defal sound bi clip ku ko déglu da koy nangu sound boobu ban état d'esprit la Crazy Mass bindee boobu sound Mouhamad waaw parce que sound bi moo doy waar surtout booy seetaan clip bi avant clip bi booy déglu sound bi ay AK yi Moustapha xam nga genre affaire yooyu noonu nga xam ne mosuñu ko woon dégg benn maire sax interpellé na ma si ni ma euh, Moustapha yonent yàlla Mouhamed amul tur bu tudd AKA ba jour boobu maa ngi la koy wax ma koy leeral ni ko AKA mooy ñi ngi koy wax lu war saan boobu ban état d'esprit nga ko bindee. waaw xam nga xam nga saan boobu déjà mu ko bindee benn figure de style boo xam ne nii bon doo koy gis euh, bu tudd name dropping boo xam ne turi turi saxaaba yi laa ci jël turu yonente bi turu turu waaraatekatu sénégalais yi ak njabootam et tout comprendre mu nekk tamit benn saan boo xam ne au début rêve la woon Casamance dafa yàgg a rêve way yonente bi comprendre nga xëy na man naa wax ne mm, cofeel la. mais rêve bu bu bu réalisé wu la mujjee nekk ba pare aussi nekk benn réussite bu rëy parce que man mi may wax ak yow benn maire woo na di joy déglu Mouhamed bi woo ma di jooy ma ne ndeysaan comprendre nga imaamu dëkk bi si boppam yof bi ñu nekk imaam bi déglu na ko wax benn maire ne man nu ma def naa mën a naa mën a ñëw euh, gisee ak moom genre ba léegi nag moo demuma fa mais incha allah dinaa fa dem donc loolu noonu. Euh, mënoo xam sax lan moo la ko war a may doo xam na yonente bi la et tout mais daal réussite totale la pour man parce que dafa neex si mu dëkk déglu benn son woola nela la na ñëw mu seet si ma ay paak lu ne di ko di ko déglu naan doomu diw li mu def et am ñoo xam ne yi ñëw di la gërëm ak affaire yu demee noonu pour man bon euh, réussite la quoi. Mhm. mais sound boobu noonu boo koy déglu yaa ngi koy expliquer sànq name dropping nga si def euh, di wax ak yonent ak ay saabaam ak yenn waaraatekat yu mag yi Kër dafa jàng alxuraan. waa <laughs> jàng tuuti rek. waaw gaasaan boobu ñan nga ci àndal bi nga koy bindee parce que am na yenn wax yi ñu ciy wax yoo xamante ni faa sa jàng xóot pour nga xam ko surtout yenn saawa yi waaw def naa ci def naa ci ay ay gëstu ku mel ni euh, jëm si yàlla yal ko yàlla yërëm oustaz Papa Jagal euh, oustaz Mamadou Fall ñu koy wax Jagal yal na ko yàlla yërëm daan na ma jàngal euh, bari woon na aussi lu ma ci jox si ay secret ak ay affaires yu ma doon xamal ak am na aussi beneen oustaz bu ñuy wax ay dara ak aussi beneen oustaz bu ñuy wax Pam Mouhamad ñooñu noonu ñëpp contribuer nañ ci ak euh, beneen sama oustaz su lakkal oustaz boo xam ne nii euh, kooku moom ay presque dañuy damay jàpp ne ay moroom lañ parce que bon day tàmm di bëreeg man et ñu koy wax oustaz euh, nu mu tudd di sax. non tur bi laay fàtte quoi. ça veut dire sant jàpp quoi mm. waaw mais bon. waaw mooy loolu daal mooy loolu. ok léegi Casamance damay dellu si waat biir Yoff Casamance lan moo tax boobu ba léegi Casamance munul percer ñu dégg ko fu nuy dégg yenn gars yi parce que bu dee talent bi mi ngi fi bu dee mën-mën bi mi ngi fi bu dee fit bi mi ngi fi lan mooy problème mu ba tey munul munul percer comme booy nu ñuy percer luy problème bi. waaw parfois sax da ngay gis ay gars yoo xam ne bon dañuy ñëw ak fukk ñëw ak doole xam di la di la di la créer dafa war a tàkk affaire dafa war a nangam non du demeewul noonu il faut que tamit que sénégalais yi comprendre que ni succès yàlla moo ko yor comprendre nga ñun dinañ def lu man incha allah pour pour àgg fenn fii te aussi sunu mbébal tamit si hip hop nekkul succès kese créer dafa am plan de carrière war a topp loolu noonu te mooy li may wax sànq ci biir wax rek euh, commencement bi yombul woon parce que après dañ fi bàyyi rab bi dem am leneen lu ñu réglé mais comme que réglé nañ ko ba pare incha allah lépp li xam ne nii moom la laaj dinañ ko ci def. sa link ak rappeurs yi ndëkk Yoff ku ci mel ni BMJ eh, Paco Briz ñeneen ak ñeneen. link bi bon mi ngi nice wala. waaw mu ngi nice parce que jàmm am na ci. mu ngi nice parce que parfois kenn am benn benn business woo ma. créé dama am benn concert bëggoon nga ñëw presté créé dama amoon nangam donc loolu ça veut que mu ngi nice parce que bu niceul woon xëy na loolu du am. Mm-hmm. ok comme mu ngi nice bu niceul woon loolu du am mais Crazy eh, jamono bii. lu nu mën a xaar si yow album mixtape EP lan. waaw instant bi man naa wax ne projet bi pare na pour deux mille vingt mais mënaguñu communiquer si euh, ban ban ban ban catégorie lay lay lay bokk ba xam na euh, album lañ koy def wala maxi wala EP bon xam naa lu temps bi gën a dem ñu gën ko xoolaat après bu ko defee dinañ am lu lu gën lu gën a leer. lu gën a leer. Mhm. mais ñun mun nañu am exclusivité turu album bi wala dara wala da nga koy nëbbu. waaw mën naa ko nëbbu comme mën naa ko joxe. waaw wala ma jox ñu ko fii parce que lii nii tey nekk na loo xamante ni ëllëg mën na nekk témoignage mhm. tur bi bu génnee fii peut-être am na koo xamante ni yéen a bokk benn tur comme jaaxas la yow ñoom. ñu teel si bàyyi xel. waaw ok li nga wax dëgg la donc euh, mën naa wax ne cette fois ci créé na jox Spartacus ren. Spartacus. Spartacus <laughs> lu war a Spartacus loolu booy ay série ngeen di tuddee seen projet. waaw mais nekkul affaire de série et mais maanaam euh, Spartacus boo ko déggee nekkul na maanaam euh, nit ki ci boppam quoi xëy na su ma ne Spartacus day day day renvoyer à nit ki ci boppam mais nit ki au début esclave la woon nekkul woon dara dara dara ñu noor ko et muy xeexal boppam di xeexal boppam di di di di di rebelle wu dem ba Spartacus nekk koo xam ne nii euh, monument la dem ba nekk koo xam ne ni kenn nootu ko fàtte ci histoire Mhm. mën nañ ko xoole côté boobu noonu. ok ok comprendre naa fi nga bëgg a waxee mais Casamance deux mille deux mille dix neuf bi mu ngi jeex gem bi mi ngi bax gars yi ñu ngi kalaasante sànnante xeer pik fii fu nekk dara génn lu ne gars yi du doon xaar Casamance ñëw bokk si langue bi moom muy jox gars yi jabaru ndi jaay gi kenn xamul. Mhm. dafa mel na nga daw xare bi quoi lu mu demee noonu. waaye du doon ngeen nekk ragal ko Casamance lu problème bi lan la est du li Casamance. toog nii tamit bañ a tàngal moo tax gars yi duñ ko bàyyi xel te pourtant booy di ko tàngal amul kenn ku la ci ëpp talent. ok mais affaire bi bon pour man du du tàngal ko ak ñàkk tàngal Crazy moom yaakaar naa boo ko xoolee lenn rek moo ragal ci moom muy ay bëtam xëy na bëti créé rek moo ragal te bëti moom bon nii laa judduwaale nii laa mel mais à part ça ragal bon gisuma ko fena te en plus bon man affaire clashante yooyu noonu affaire yooyu man nekkuma ci. du ma ko si dindi nag parce que rap philosophie la ku nekk aussi li nga sentir ngay def Crazy xëy na mën na dem ba benn bés mu am nécessité classe bon mu oo kenn classe ko tudd turam et tout mais pas comme comme ni ko gars yi defee parce que euh, tey dañ dem ba après public bi dañuy jàpp ne ku gën a ñaaw laa mañ rek yow yaa dàq rap alors que demul noonu rap alawoon ku euh, dafa nekkoon koo xam ne xëy na moo daaxoon xel yi peut-être koo xamee ni day démarqué wu ñëw di joxe affaire yoo xam ne doo ko dégg fenn sànq yaa ngi koy wax si biir eh, si sànq Mouhamed bi xam nga loolu c'est nga gis rappeur def ko pour man game bi foofu la war a toll gars yi innové si côté musique bi côté texte yi côté bind bi et mais pas nekk fii ak ay clash yoo xam ne ku si nekk day wax moromam naan su ma la jàppee naa la laal parce que góor tamit bu demee bay laal góor ñoom ñaar ñëpp ay PD lañ loolu laa gis ah bon ban message nga leen di sànni ñoom ñi nga xamante ni jamono bi ñu ngi classante lan mooy message su Casamance. message bi mooy euh, clash kenn mësu kenn mënu ko dund si hip hop te sax clash daf ma neex parce que charme hip hop la da dundalaat mais aussi bon bu jeexee jeex na gars yi nañu nekkaat ci leneen. mais pas di ci di ci attardé wu à chaque instant dem ba après ñeneen sax ñu toog naan boo yéen rappeur da ngeen réew bi amul kilifa rap nangam et yooyu yëpp pour war na mën ñàkk. parce que boo xoolee ay at ci ginnaaw tuuti daan nañ wax naan fii dëgg bi rappeur yoo koy wax. da ngay dégg benn paanaan man ma déglu rap bi sax moom ma gën a ma beneen musique parce que ñoom li gars yi ragal koy wax ñooy wax dëgg bi ñoo nangam donc pour man bon war mën a delluwaat foofu quoi waaw jaajëf Crazy am na solo war nañ mën a delluwaat ci ginnaaw dellu ci mbind bi li nga wax dafa am solo boo xoolee jamono bii eh, Guy Marius Sagna mi ngi si jeel bi ñun ko tëjandool ñëpp bàyyi nañ leen mun nañ wax ci loolu ga courant baa ngi ni yokk nañ ko gars yi am na lu ñu war a mën a wax nañ ko wax te wàññi classe tey donte classe nag man daf ma neex dama ko bëgg surtout li booy di def nii juste lenn rek la ñuy ñaan nañu xaw a wàññi saaga yi gën a utiliser technique bi gën a utiliser dawal bi loolu lañ ci gën a soxla ka saaga yi quasiment sa baas bi yoof baa dëgër na jamono bi ñu toll. waaw sama base yoof euh, dëgër na comme comme toujours ah yoof moom yoof yaa gën a jox euh, CREI respect yoof yaa gën a taxaw CREI CREI yaa gën a génn. def benn mobilisation boo xam ne nii ñëpp dañuy foog ne sax waa yoof yëpp ñoo génn alors que demeewul noonu gars yàgg nañ ma jox respect yàgg nañ ma suivre mais aussi yàgg nañ ma jàppale surtout Yoff yàgg na taxaw Crazy Mass Crazy Mass Crazy Mass Yoff la Yoff moom la am ak ak Caaroy Géej waaw parce que foofu aussi am naa fa base aussi c'est important moom moo signalé ko mhm. am nga base Caaroy Géej Crazy Mass ban label la ne jamono bi ñu toll ban label waaw maa ngi ci benn label bu tudd Seven Truth bu nekk Sangalkam Hmm, signé naa fa benn euh, contrat déterminé instant bi ñoom laa nekk di liggéeyal waaw ba hmm, ba contrat bi jeex. contrat déterminé ba contrat bi jeex kon doo ñu wax ñaata at nga fa signé xanaa ñaanoo yàlla yor yor sa yëfu bopp yooyu bro. waaw mooy li may wax nee naa nee contrat boo xam ne c'est contrat bu déterminé la quoi maanaam contrat boo xam ne dafa am fu muy fu muy yem après bu jeexee bon xëy na. bu fekkee euh, gis naa sama bopp ci ñoom ñoom gis nañ sama bopp euh, ñoom it gis nañ sama bopp ci ci man euh, dinañ mën a dinañ mën a continuer waat beneen contrat sinon bu dul loolu créer mën a demal boppam am yëfeeru am am affaire boppam wala xëy na tamit mu demaat ci beneen beneen label. Mm-hmm. mais Crazy Mass beneen affaire am na boo yoo fi yóbbante la Paco brise mi ngi jël grand théâtre Sorano yenn ren estade la jëm mm-hmm. Crazy Mass pourquoi pas yow it nga def ni booy di def jël saal yu mag yi. mais mën li ngay def ba pare tëju tamit est-ce que gars yi dina la bàyyi xel. non nekkul nekkul dama tëju nekkul dama tëju sax mooy li may wax rek fu mu toll nii euh, dañu dellu siwaat nekkaat ci à 100 pour cent gars yi nañ gis euh, ñu jël ay salles yu mag et tout. Mm, waaw mooy li ma la sànq créé du copier. chaque jour ñu lay invité ñu lay invité ngay dem di gérer tamit Crésimence ñu toog benn jour sax nga invité ñu ñëw ñi. waaw bu sànq nee naa la dèjà naa may yof benn concert avril incha allah. mais aussi plein air waaw boobu plein air lay doon. mais aussi bon dinaa defaat aussi show boo xam ne nii mm-hmm. euh, payante lay doon gars yi je pense que euh, dina entrée payante lay doon mm-hmm. euh, yoof dina wuy si dina doon dina jël salle bu mag et tout mais mooy li rek créer xoolul ci kenn pour def dara mm-hmm. parce que gars yi nga fiy dégg yëpp créer dinañ ko yéene rek mais ñëwu leen parce que boo déglee boo dégloo sànq créer déglu yeneen gars yi mën nga ruus sax quoi. mais Crazy Mass Yoff ak dëkkuwaay bi nii ipop bi fii. est-ce que jafewu fi ndax boo xoolee yoofu ñu fi nekk ñëpp ay ndaanan lan daabul di bako brise bi jéy karabalik résimence ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay ndaanan lan fii lan dëkk te bu nu rabee nga bit signé beatmaker karabalik bu kiyee nga signé papino boo yëpp ñi ngi fii quoi mu am beneen label bu fi nekk encore jiifa universel mais lan mooy problème mu artiste yoo fi est-ce que nekkul dëkkuwaay bi da ciy compter côté diine beeg yooyu noonu tamit <laughs> waaw yoof moom dëkku diine la ku wax Yoff xam ne dëkku diine la dafay feeñ appel buy bu bu adduna bi yëpp ñëwee wuyu si mais bon loolu ak rab bi peut-être que beneen facette la bokkul rab bi gars ñu ngi dem pourtant yaa ngi koy léegi nee na Yoff ñu ngi leen di dégg et te ay ndaanaan lañ fiy dégg kon je pense que ne rab bi côté Yoff bon euh, ça va bien quoi mu ngi am par rapport ak ni leen di déggee ak talent bi ci ñoom waroon na dépasse fii di dem tey benn Crazy Mass tey waroon na mën a toll foo xamante ni du ñee kenn benn daabul di ku ko dàqarab amul Reco Brise ndaanaan la ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi dëkk biir Yoff mën lu ñuy def mais nun war a percer dëgg-dëgg ñu gën leen bàyyi xel dëgg-dëgg ñu si bëri dañuy wax naan est-ce que du côté religion bi fi am doole moo leen gàllankoor bawal looloo fa am da ngay gis booy am talent mais duñ mën a percer côté boobu tamit damay ragal looloo leen gàllankoor loolu bokkul si lu leen tënk wala yooyu làqalu la dara loolu noonu non non yàqul dara parce que parce que parce que public yu Yoff mu ngi wuyu si mm. sànq waxa ko Négo Négo Brise am na saal saal bu mag la jël mu fees mm. mais euh, da leer na kon à cinquante pour cent waa Yoff la comprendre mm. donc waa Yoff ñu ñoom ñu ngi wuyu si et tout loolu yàqul dara mais succès yàlla moo ko yor maa la koy wax sànq euh, incha allah bon di nga gis beneen di nga gis gars yi percé quoi am naa si am naa si am naa si njort bu rafet mm-hmm. Mm-hmm. lan mooy say dernier mot sama dernier mot mooy euh, di leen di leen masawu si déplacement bi euh, di kontaan aussi si si si émission bi et tout euh, di wax ne gars yi 28 décembre incha allah naa leen may jabaru jàmbur comme vidéo pour l'instant mu ngi daw ci rajo yi mais gars nañ ko am 28 décembre incha allah via via YouTube Instagram ak plateforme yu bëri sama gars yi maa ngi leen di Euh, gis nga gars yi ñoo nekk nii mafia bi xamoon nga waaw à part ça ci lépp ci lii. jaajëf ñu ngi koy bëggee bu baax a baax Crazy Mass from Yoff rafet si moom bu wër a wër Galsen sama game la woon sur Equivox TV rendez-vous dinañ fi amaat beneen bandi sama gars yi comme ni ñu koy defee chaque àjjuma respect si ñëpp rendez-vous ba beneen yoon.